Cheikh Doumbouya ñu gën koo xam ci Sitafa Sarr pour ñu doon seetaan dikkoon ñu dippee ko Pape Birahim pour ñiy seetaan Madior ak Dior jël na soxna ku mu takk xanaa ndey seen ñu gën koo xamee ci Mère ma nekkoon ca série bu ñu daan woowee Mayacine ak Dial bàjjenu ñu xit ba woon am na boroom kër

Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.